asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mboolem ñi fi teew ñi ngi leen di jotli ab nuyoo ak ay kaddu yu jóge ci ku tedd jaar kaddu yu jóge Cheikh Mouhamadou Mountakha jaar ci kii di porte parole am di Serigne Bassir mu Cheikh Abdou Khadre Serigne bi yebal nu fi boole nu ak Serigne Murtada Sy ngir ñu teewe si jotaay bi nga xam ne lépp ay xéewal la lépp ay ngëneel la ndax day mel ne lu ñu yàgg jàmbat wax nañ ko léegi moom lañ jóg ngir indi ci ay saafara loolu nag monsieur le directeur général ngi lay sant di la ci sa taxawaay bu rafet ak yitte li nga xam ne jox nga ko dëkk bi ci seen ndigalu kilifa mu di le président Macky Sall ndax ni ñu léegi de mel na ne fii nga toog di toog waaye ba ñu joxee ndigal nee na da nga toppatoo Touba daal di jël Touba def ko yitte ba tey jii ñu taxaw fii ci yokk li nga xam ne mooy kon li nga xam ne moo jëm ca Darou Rahman di leen sant ci jàmm yi nga xam ne weesu na da nga leen mu toll ci alal mbënd mi ci biir dëkk bi di la sant itam ci li nga xam ne doon nga ñu ko jox léegi. muy caabi yi nga xam ne moo di toile yi ñu doon defar ci lenn ci penc ci biir dëkk bi te muy dimbale nit ñi rawatina gan ñi ak mbooloo yu bari yi ci màggal yi ba yëkkati ko jox caabi yooyu jox ko sëñ Abdou Lahad Ka mi nga xam ne sëriñ bi moom la teg loxo ci dëkk kon ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm di la yóbbante cant ko ci sa kilifa mu di le président Macky Sall mu xam ne li mu fi def lépp sëriñ bi nee na gis na ko sëriñ bi nee a yëg na ko sëriñ bi nee na mi ngi ko sant te lam ko waxoon te màggal rek lañu feddali mooy jëfal rek sëriñ Tuubaa gis na li ngay jëf kon foog naan jooju wax am leneen loo xamante ni moom lañ ci tegaat di sant yi aussi ci li nga xam ne jot nga ko léegi muy li nga xam ne war nañ ko yaatal liggéey bi ndax loolu mënee su cee ñàkk dikk ndax mooy li xale doon wax léegi kon bu ngeen ko yaatalee ba yóbbuwaat ko ci yeneen point bas yu nekk ci dëkk bi di jéem a xool na ngeen ko ci boole ba loolu wàññeeku loolu aussi lu baax la ñu ngi leen ñu ngi leen ci encouragé di leen ci ñaax di ñaan yàlla mu kattanal leen ba ngeen man koo defee ni nga xamante ne bii noonu yi ngeen ko noonu ngeen ko bëgg di leen itam fàttali li nga xam ne moo gën mën naa ne corniche tubaab yi. jëm ci ANR yi ndax foofu itam lu yitteel sëñ bi la ndax ci dëkk bi la bokk ndax dëkk bi du ñëpp dañoo gàddaay ndax jaaxle ndax wóolu sëriñ Touba ñëpp gàddaay ñu fekk sëriñ bi ñu dikkee nag kon sëriñ bi moom jàpp na ne kenn ku nekk fa nga nekk moo la war a fekk jàpp ndal saw nekkiin ba li taxoon nga gàddaayee sa dëkku maam ñëw sanc si fi ñu Touba fekk sëriñ Touba. doo fi am yenn jafe-jafe yoo xamante ne bii indi gàllankoor la di mën a dox sa diggante ak jaamu yàlla. moo tax ñu leen dénk itam barab yooyu nga xam ne génn na corniche bi ci barab yu bari fu mel ne saam fu mel ne waxtu lu baax boo demee ci wàllu penk bi ak foo mën a aw rek foog naa am dafay barab yoo xam ne moom itam lu mel nii bu ngeen fa mën a yaatal foog naa ne du lu baax lay doon du du dara di. sant itam ki nga xamante ne bii mooy ki doon wax léegi di sëriñ Modou Gueye mi yore liggéey bi moom itam ñuy leeral nga ko di ko rafetlu di la ñaan rek nga bañ a fàtte ñu mel ndaw yi fi nekk ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi ko fi def lépp loo mën a jël ci dëkk bi ngir ñu mag ci liggéey am ci lu ñu suturloo ñu ngi lay ñaan ci turu sëriñ bi nga def ko en priorité jëlal ndaw yi dëkk ci dëkk bi muy les jeunes de Touba jox leen main d'œuvre bi ñu liggéeyal la ko ndax foog naa ne ko te fii ndaw yi li te woon a liggéey dañ ci bari bari aajo woon nañ lépp lañ am itam at di ko la rek ne kii di Cheikh moom Mountakha ci li ko kii rek kàddoom waxee mu di Serigne Bassirou. moom lu dul dëkk bi day ñoru ko lu dul yoon wi yitteelu ko te kenn ku ne gis na doxin bu bi nga xam ne doon na ko dox ak kilifaam ya fi nekkoon muy wajuram yi jiitu woon ak magam yi nga xamante ne bii ñoom la wóotu mu di Cheikh moom leen baar ak Cheikh Sidi muy xam lene ne ñooy ñi de kenn ku nekk ci ñoom am na loo xam ne sax bari na def nga ko ci assainissement ci biir dëkk bi chef ndax li mu fi def fi la ñu fekk muy li war jumaa ji foog naa ne loolu mooy premier réseau d'assainissement bi am ci Touba Sëñ Saliou ñëw yokkaat Alaaji Baara noonu Cheikh Sidi Mokhtar noonu kon moom foofii la fas yéene teg tànkam ndax dëkk bi état bi am na ci loo xam ne moom la war waaye sëriñ ñoom li mu jàpp mooy ne Touba moom ak taalibe bi sëriñ Touba yi ñoom ñoo ko war defar kon képp ku ñëw rek da koy jàppale da nga koy dimbali moo tax bay xam ne ñëwee dafa ci fekk mu nekk ci bu nga xamal loolu talibé yi dina xamal ne jafe-jafe yi nga xam ne am na fi ci wàllu assainissement def na ko yitte te bu ci yàlla àndee dana saafara ndax ñoom lépp loo xam ne ñor na leen bu soob yàlla suñu borom dana ko saafara muy xam leen itam ne bi fi toog ak léegi. kenn ku ne gis na li nga xam ne noonu lay jëfe jëmee ko ci askan wi gis nañu li nga xam ne yitteel na ko ci wàllu jàng te muy lu am solo te am nit ñu bari ñoo xam ne sax dañ daan wax ne jàng nañ ko gannaawal donte demewut noonu kenn ku ne gis na li nga xam ne ñu ngi ko dimbalee hôpital yi barki dem rek foog naa ne def na ci loxo bu baax a baax kon wàllu assainissement gi ak lépp loo xamante ne bii di jëmmale doomi dëkk bi kanam di jëmmale dëkk bi kanam loolee dana ko bàyyi xel te ci lay nekk kon itam yéen ndaw yi nga xamante ne bi yéen doon wax léegi na ngeen xam ne sëriñ bi fattewu leen te li seen yitte moom yitteem la ndax taalibe yi ñoo ko fi tax a toog ngir di leen jàppale. koy itam li leen naqar yi la ci ëpp solo mooy di ko wax ñi nga xam ne ñoo fi nekkal sëriñ bi ndax liy saafara seen i jàngoro mi ngi loxo sëriñ Tuubaa ndax sëriñ Tuubaa mooy seen sëriñ sëriñ Tuubaa ngeen yaakaar am kenn ku ngeen sëriñ Tuubaa te fi ñu toll nii am na benn jéego boo xam ne war nañ ko set te loolu suñu sëriñ bi bàyyi na ci xel ndax wax naa léegi li nga xam ne def na ci wàllu assainissement bu ñu ko jiitu woon te kat yoonu Serigne Touba amul tànk dina am tànk lan la kon tey li ñu war a xamte woo mooy ñun taalibe Serigne Touba naka lañu mën a fexee ba ndox mi duuti génn di yàq ay kër ndax ndox wërta yàq ndax ndox xéewal la bu ngeen ne daa waxoon ngeen ko jëmee kenn ku ne gis na liggéey bëri ba nga xam ne sédd laa yi doon fa def di fa bàyyi ay tool euh, fi mu nekk ñuy ndokk bari na loo xam ne mi ngi mi ngi ñor di ñëw Touba ndokk lay jógee kon ñun li nga xam ne moo war nekk si priorité mooy ñu fexe ba mi bu dee ba foofa ñu jëlaat ko di ko di ci roose ay dër di bay noor ak nawet Touba ñëpp di liggéey ay xéw am ci waaye waruñu see am ndox rek nekk ci barab di génn di dem ci ay kër di ko yàq ndax ndox boo dafa bari doole bu yàggee miiram mën naa toj wala accident mën naa am wala bomb mën naa faal kon li ñu war a def moo di fexe ba ndox ñu seet naka lañ koy jariñoo ci anam xam ne dana amal njariñ askan wi loolu ñun ñii la war ñi nga xam ne ay taalibe lañ na loolu nag la war wax nañ ko le maire daana ko wax foog naa tey jii am na dëgg ci ñu bari ndax li ñuy def fii muy 1 milliard 200 cent ba 1 milliard boo xoolee mu budget trois ci at mi ñoo tolloo kon lii maire at mi loolu yi war état nag waaye en tant que talibé dëkk bi yitteel ñu dëkk bi ñor ñu bu ñu dikkee nañu ci fekk ñu ànd ko ak ñoom ba nga xamante ni sëriñ bi li ci ñun dana ko kon daal kaddu yi jotaay bi yàgg na te nañ na ci waxtu koor la nekk te am na kilifa yoo xam ne ñu ngi toog di ñu xaar kon ci turu sëriñ Bassirou mi nga xamante ne bii. kaddu gi ci moom la jaar di kaddoom war a feetoo am ngant ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di ñaan yàlla liggéey bi ñu tàmbale ko ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi ñu alamin te lépp dëpp ak ngërëmu Serigne Touba te lépp lu ñuy def itam ñu am ci ndam mu Serigne bi nangul la ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh